asalaamaaleykum mbokk internet IGFM ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm seen émission wax wax ji ñoo ngi fii ci Parcelles Assainies unité 3 ànd ak ay jeunes waa waxtaanee tey thème bi nga xamante ne mooy les jeunes et l'acte 3 de la décentralisation léegi nag pour ñu xuus ci waxtaan wi ñoo ngi ànd ak Balla Diouf Idi Dia Pape Mamadou Samaké Moussa Tine pour euh, que xuus ci waxtaan wi euh, maa ngi jox kàddu ki ki nga xamante ne mooy Père Laye moom mooy euh, magu jeune fii nii ci koñ bi Père Laye ma bëggoon xam ne yow nan nga gisee acte 3 de la décentralisation. jërëgeen jëf yéen waa GFM ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay di nuyu xale yi nga xamante nag ñoo fi nekk tey di teewul waa première tranche de la Parcelles des Parcelles Assainies

waaw bon acte trois de la décentralisation dañ ci dañ koy rafetlu d' abord comme ni ko père lay waxee bon di wax ni lan mooy pour ñu waxtaanee décentralisation man li ma si yox tudd mooy lan mooy décentralisation d' abord parce que ba acte bi ñu bëri dañ ciy wax mais ñu si ëpp xuus ñu si carrément comme ni ñu si war a xuusee pour man tey c' est le moment ñun entre jeunes fii au niveau de la première tranche ñu waxtaanee ko man dama naan lan mooy décentralisation d' abord parce que bu ñu wax décentralisation dañuy wax ni du dara lu action la boo xam ne nii pour C'est une action qui donne le pouvoir, le pouvoir de gestion administrative d'une région aux, autorités locales élues par une population. Donc, il faut une gestion participative si acte 3 de la décentralisation au niveau des populations au niveau local. Donc, lolu mu am bo 3 de la décentralisation. Donc, il am avoir jeune 3 de la décentralisation. Moy cette gestion participative. mais na pour jeunes yi tey mën a impliqué si acte de la décentralisation il faut tam ñu xam lan mooy acte de la décentralisation loolu moo tax man tey damay interpeller directement le ministre c'est vrai que def na ay caravane de sensibilisation dugg ci dëkk bi di di di nit ñi mais dëggantaan ni ñu war a wax nit ñi dëgg-dëgg li nekk au fond de l'acte de la décentralisation defuñu ko loolu dañ koy naqarlu parce ñu impliqué bala nga yi mën a impliqué que bala nga impliqué wu foog nga xam waaw xanaa d'abord di nuyu mbokku téléspectateurs yu GFM donc di leen wax ni acte trois de centralisation, décentralisation dinañ ci sawar trop pour wax ci parce que bu état jëlee une responsabilité d'une localité moo xam département la moo xam commune la jël ko jël la responsabilité ñëw ni gox bi yéen dama koy indi ba seen tànk yéen ngeen xool ñi leen doy ñu jël ay compétences jox leen jël un budget jox leen pour ñu koy doxal pour une gestion bo xamni nit ñi gérer ñi administration bi nga localité kon japp ni indi pour askan wi mën ko gérer sen bop war ko topal sen bop xol li nga xamni ne mengo ak sen bëgg-bëgg gox ñu ko jeunesse parce que bu waxé jeunesse ki nga am énergie jeunesse nga am ben esprit bu fertile am ben une certaine connaissance wala leneen ak leneen am cawarte kon jàpp naa ni kooku dafa wara nek au cœur même de la gestion de la décentralisation mais warul nek un spectateur loolu moo tax tey ñu sawar tay pour wax ci débat bi nga xamanteni moy l'implication des jeunes dans l'acte 3 de la décentralisation xamna buñu xoussé ñu gën ci sori. d'accord jërëjëf euh, sa xalaat par rapport waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu wa GFM du nuyu ñi nga xam ñoo toog ci plateau bi.

Le lancement bi ñu ko def le 7 juin 2013 le 19 mars 2013 pour man dañ ko def dañ ko yàqam ci de trop mënoon nañ temps gën ko tegaat ci raay parce que luy jëriñ population bi ci base bi la. kon tey le président Macky Sall kenn gën ko xam lan mooy acte 3 de la décentralisation parce que nekkoon na fi maire ci commune ñëw nekk ministre de l'intérieur intérieur chargé wu lépp loo xam ne mooy jëm ci élection kon bu ñu xuusee ba si biir waxtaan bi dinañ gën a idée indiwaat suñuy waxtaan génné suñuy xalaat. d'accord jërëjëf nga jox Idy Thiam euh, mu yokk xalaatam par rapport. salaamaaleykum <clears throat> soxna si ñu ngi lay nuy bu baax di rafetlu vraiment invitation bi nga xamantene ne moom nga ñu jagleel tey ci seen euh, site GFM. di wax ni que tey tamit ñu ngi fii di débattre au niveau des de Assainies surtout ci unité 3 thème bi nga xamantene thème bu am solo thème bi dab bi nga xamantene actualité la moom mooy euh, acte 3 de la décentralisation ba paré ñu boole ci tamit euh, ban rôle la ci jeunesse bi war am par rapport à son application ma yakane lool vraiment lu rafet té ñu ngi rafetlu vraiment sujet bi quoi di wax ni que euh, décentralisation mom comme niko ñëpp waxé liko ko moy mooy hum, décision yi ak ci population mana nga bàyyi population bi ñom ñu administré wu nous avons une certaine autonomie de gestion Nous avons loolu une na ci li nga euh, décentralisation di wax ni que euh, décentralisation de lu Sénégal parce qu'il y avait l'acte 1 ak euh, le code de la décentralisation de 1996 mais si vous tamit une évolution dafa baax boo gisee acte 3 bi man ci lu tax ma gën décentralisation de 1996 mais il mais y a des limites Nous avons tax ñu entreprendre réforme yakana naa réforme bi da fay corriger yene limite yi nga xamante parce que décentralisation da fa wara nek ben outil bi nga xamante ni daf ñuy dañuy développer ci fànn yëpp bo gissé nag mu am yene yenn blocus euh xeyna dañ ci demul wala dañ ci demul comme ni ci war demé wala xuusuñu ci comme ni ci war a dal daal moo tax bu mu gisee le président Macky Sall jéem andi yenn correction par rapport ak euh, li fi amone mu andi ñu ak trois de la décentralisation yakana naa dinañu war a permettre ñu avancer ma bayyi bàyyi Pape sama Samaxi mu développer en attendant ñu dugg dans le vif du sujet quoi d'accord. salaamaaleykum euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu seen téway fi wa GFM di kontaan ngeen ngeen ñëw ci premier tranche pour waxtaan ak jeunes ci thème acte de la décentralisation ñun loolu mënuñu lu dul rafetlu ko parce que boo déggee ñu ne boo déggee ñu ne de la décentralisation de la décentralisation li ci li li ci li ci population bi nu mooy pour que ñu mën a jëlal seen destinée en main parce que ku ci nekk fi nga dëkk gox bi nga dëkk ya xam li fay problème ya ko xam li fa baax ak li fa bon ya ko xam donc loolu buñ ko retourner la population vraiment mënuñu ñun lu dul rafetlu ko quoi maa ngi yem foofu pour le moment voilà. waaw salaamaaleykum avant tout dañ leen di dañ leen di dalal jàmm di remercier aussi invitation bi ngeen def euh, tey au niveau de la première tranche di rafetlu aussi seen teewaay ci gox bi bon man nag dafa am lenn la nga xamante ne su ma. Lire textuellement ce qu'on a écrit acte 3 de la décentralisation damay entre parenthèses ce qui m'intéresse dans tout ça c'est la décentralisation entre autres parce que c'est le vrai problématique la décentralisation parce que si on ba ci la décentralisation dafa un transfert de certains pouvoirs de certains pouvoirs de conception ou décision ñu ce ko askan nous sommes sur la base pour que nous menions donc ce que c'est une façon de responsabiliser les gens c'est une façon de donner une autonomie à une certaine population ba nous ñu mën a yëngatu ci li nga xamante ne ñoom doxal gox ci ban implication yi la ci jeunes am bon moi je me si dit que l'acte acte de la décentralisation c'est pas simplement pour les jeunes mais c'est pour la communauté sénégalaise c'est pour l'ensemble des Sénégalais mais les jeunes ils ne sont que les porteurs de voix véhiculer le message jàllale ba ne tey pas comprendre parce que boo le problème des yëpp la nekk dafa am ils ne peuvent pas comprendre ce nga vous ne c'est la affaire donc c'est le moment les jeunes de pour vulgariser l'acte 3 de la décentralisation donc euh, je pense que c'est une chose que vous savez, toute la population sénégalaise s'ils le comprennent doivent adhérer à 100 donc dama ci yamandeegum foofu bàyyi ba nga xamante ne gën nañoo xuus ci waxtaan bi mu mën ci merci beaucoup Je suis vraiment contentement jël parole ci ce bi c'est un thème vraiment au actuel Nous wax ci euh, acte 3 de la décentralisation parce que euh, thème bi boo gisee implication des jeunes ci biir thème comme nous ko ñëpp waxee rek jeunesse dafa am solo te ku wax acte de la décentralisation wala wax ci état ndax dëkk bu ne ak forme état bi nga xamante ni moom la adapté Sénégal ku koo xool l'État, ni état la boo état unitaire la te état unitaire day classiques, ay forme classique am ay forme moderne euh, ci forme moderne yooyu dañuy ni y a ce qu'on appelle la régionalisation c'est-à-dire que mooy décentralisation un plus euh, plus avancée et ci décentralisation boobu ci la ñuy xool ni acte trois fa la ñuy c'est-à-dire que dañuy renforcer euh, compétences collectivité locale ba nit ñi maanaam mëna gëna gën a jige ñi nga xamante ni maanaam ñoo jiite yooyu bërëb bu ko défé mëna gëna taxaw euh, gox goxaan ak ñi nga xamante ni maanaam ñoom ëmb ci biir gox yoy nga xamni kon euh, jeunesse bi ñom dañ ci am rôle bo xamante rôle bu capital la mais li ci gëna nek nekk problème mooy autorités yi nga xamante ni ñi nga xamante ñoo waroon divulguer message bi ba mu gëna a leer ci nopp nit ñi dafa xawa dess

maa ngi leen di di leen sant di leen gërëm mun naa ni ak trois bi yaakaar naa ne xaw ma si woon lu bëri mun naa ni euh, fonctionnaire yi ni nga ko waroon euh, tasee si dëkk bi dese nañ ko tas daal mun naa ni tey jeunes yi tey yaakaar naa tey ñoom ñoo tax sax ñu gën a xam tey acte trois bi waaw di leen si remercier quoi ndax mënu ma si xamaguma si lu bëri daal maa ngi déglu suma gars yi ba si kanam.

dina permettre par exemple commune recruter des jeunes recruter dans le cadre administratif et dans d'autres cadres mais en ce qui nous concerne dañu set dañu def diagnostic sur nos secteur manam bir parcelle unité 1 unité 6 niche d'emploi Nous avons commune bi ku fi nous pour jëm potentialité un bi littoral littoral bi da bokay xol mën nañ la baie de San Francisco au Sénégal Si on ko utiliser euh, exploiter à bon escient avec des autres d'autres réceptifs ça pourra faire vraiment un système immo, un système à haute intensité de main d'œuvre ça c'est un de deux de deux aussi pourquoi ñu bëgg gëna mëna impliquer parce que gouvernement local nous wax kon déterminer ban type de politique mo pour répondre au plan Sénégal émergent nous avons par exemple les Niaïs, nous nga xamante comme sud le nord c'est le Guédinec, mais au sud nous avons les Niaïs. et sur les Niaïs, si vous seet fi le wax technopole am un lac lac naturel Nous, ñun l'exploiter. nañ ko exploiter dans lañ koy def zone d'aquaculture ça c'est un de deux la Chine Taïwan Taïwan bàyyi nañ deux hectares deux hectares yoo un nag si euh, centre euh, Cambérène horticulture bu Cambérène bàyyi nañ fa 2 hectares yo xamante nak fi mu nekk nii c'est en jachère loolu aussi par rapport ak mi nga xamante nak mom le président di sant jeunes manam la politique d'auto-emploi ñun fi dañ koy woowe autoportance parce que dañ na avec ou sans le système formel ñun war nañu xol suñu carte nak nañ def bi génn mais terre yi nga xamante nak mi ngi fa mën nañ ko lënkaleeg li nga xamante nak euh, moy aquaculture bu ma wax mu culture aquaculture agriculture mais agriculture maraîchère lay donne parce que faut zone de zone de il la a muy deux niches qui nous nag jot nañ fi gis am na ñeneen yoo xamante nag bu ñu ba si biir dit mais pour le moment son implication mooy nous bokk au pouvoir de décision au cœur des décisions, parce que nous formons la majorité la majorité de la population et de l'électorat merci voilà man acte trois de la décentralisation li ma ciy xaar mooy euh, d'abord vers bu ñu dem vers l'application de l'acte trois de la décentralisation mu am benn consensus consensus boobu tamit li koy andi mooy fi ñu doon génn sànq rek mooy ci côté euh, appropriation acte 3 de la décentralisation pour nit ñi xam dëggantaan la mooy acte bi ak tamit njëriñu acte bi 3 de la décentralisation bu ñu ko xamee yaakaar naa mu am consensus application bi man loolu maa ngi koy xaar vraiment bañ doon lo xamni ni day doon yëfu ma Samba wala yëfu Demba mais mu doon yëfu Sénégal bi yëpp parce décentralisation lañ wax politique de décentralisation bo xamni dafa exister depuis l'indépendance indépendance politique de décentralisation mu exister au Sénégal donc li suite logique la war ñu ci jël diko sanni xéer dañu war ken ko wara waxtané waxtaanee li ci rafet ñepp ñu déggo ko mu am benn conscience ñu mën ko appliquer légui su ma ñëwaatee tuuti si jeunes yi tamit c'est vrai que jeunes war nañ war nañ euh, participer ci ci ci ci rôle kii euh, moy information vulgarisation de l'information si mais tey tey de transférées nous avons partie de la euh, euh, jeunesse sport et loisirs. C'est compétences transférées les neuf domaines de compétences. Je une activité appliquée acte bi li nga conseil départemental dëggantaan envers la jeunesse ñu ñu def ko comme il se doit parce que tey si tey am na benn simplicité boo xam ne am na si acte 3 de la décentralisation au lieu que tey ñuy wax ay ñetti collectivité locale tey dañuy wax rek ñaari collectivité locale muy commune ak département am na benn simplicité parce que bu ñu demee sax ba tey ba si monde bi sax dañ naan mondialisation dañ naan monde région mu gën a gàtt donc kon foofu la foofu la àdduna toll kon tamit àdduna toll tamit tamit Sénégal tamit ñu mun naan collectivité locale ñu wax commune département mu am benn simplicité simplicité mais léegi mu am ben gestion participative boo xam ne mën ko waxtane sank jeunesse war si mën impliqué wu mais tam implication bobu tamit pour mu am foog tamit tamit jeunesse bi dugg pouvoir de décision yi fi nga xam ne tay tay ñoo ñoo ngi dem envers des envers des locaux. maanaam si si pouvoir de décision mu am mu am une représentativité au niveau de la jeunesse jeunesse bi représentative représentatif foofu non comme ça ñoom di leen gëna mëna téwal sen sen sen seen seen tamit vraiment ñong koy xaar consensus d'abord en plus ak implication tamit des jeunes vraiment dans la vulgarisation. waaw Bala may wax lan lañuy xaar ci acte 3 de la décentralisation d'abord dañuy xam acte 3 de la décentralisation yan objectif le fixé wu. parce que day important pour ñu xam lolu fi mu jëm ak ñun naka lañ ci wara mëna démé. parce que buñu xolé euh par rapport à acte 3 de la décentralisation innovation bi mu indi moy nous avoir une cohérence territoriale pour une organisation de l'espace et l'émergence des pôles de développement. Si nous parlons ça veut dire que les communes qui sont les dans rurales qui sont Nous tech, doivent nous accès basé sur les ñi nga accès ni bokk ay ñu leen réunir ba nga nga xam ne ñooñu bu basé ci potentialité boobu dinañ créer l'émergence même de la localité donc c'est bok na ci élément un élément bi moy assurer une lisibilité des séances, des de de la gouvernance territoriale parce que si xolé sur le plan institutionnel dafa am tout souvent dañuy gis ben empiètement bi am pouvoir central par rapport au pouvoir décentralisé parfois nous avons un ministre bi nga xamanteni dans une localité bi nga xamanteni compétence c'est une compétence transférée Nous ñu jox le maire maire bi le ministre dugg fa sans pour autant aviser même le maire dans ci domaine de compétence c'est-à-dire que lool duñ ko ba ci acte 3 bi day ñëw bu gëna définir exactement rôle acteur yi nga xamanteni ñoo wara intervenir ci domaine de compétence yi nga xamanteni mom moom la collectivité di am mais également pouvoir central tamit daf ci am pouvoir ñu mën ko benen élément bi moy tamit gëna fexé ba collectivité locale yi ci seen walu am am mécanisme de financement yi mu am mu gëna performant loolu parce que tay su fekkee ni tay da nga ñëw ba parcelle nga ni da nga développer ak des activités euh, pluvio-pastorales parce que loolu nekkul amul benn cohérence ak potentialité yi nga xam ne moom la am te leneen li nga xamante ni bëgg naa ko par rapport ak ñun jeunes yi c'est-à-dire que ñun waruñu toog di naan amuñu information ci acte trois de la décentralisation parce que bu ñu xoolee de la décentralisation c'est une gestion participative ñun ki nga xamante ni nekkul acteur nekkul ci biir conseil municipal wala nekkul un un élu moom war à chaque fois mu dem ci collectivité bi pour jël des informations information exactement ce qui a été retenu dans le budget et exactement ce nga xamante ni moom la municipale bi di parce que tey parce que bu rôle xoolee tey ak de la décentralisation soo xoolee ak par rapport au jeunes yi communauté rurale communauté rurale yi ak acte deux bi amuñu possibilité pour jël ay personnel Aujourd'hui, ak ak euh, communalisation intégrale

Parce que je dis souvent, l'État ne peut pas créer de l'emploi, mais il peut aider à des gens de créer de l'emploi. Nous, nous sommes des entrepreneurs. Nous savons créer l'emploi. Dans l'acte 3 de la décentralisation, les petites bases ont commencé à faire euh, léegi yow nga wax rek nan ngeen nar a gisee seen bopp ak de la décentralisation ak yéen contribution ngeen nar a def par rapport ak jeunesse bi moom man yaakaar naa ne acte trois bi bu ñu ko rëddee yaakaar naa ni jeunesse bi mo ci gëna war a gis bopam parce que acte bi boko xolé xoolee li mom moy moom Sans développer changer fi par rapport ak ben système bi fi nekkoon moy renforcer décentralisation bi nga xamante ne moom moo fi amoon. man dal li ma ciy gis rek mom mooy euh, jeunesse bi nañu buuxante ñu dem ci dans les instances de décision té bo xolé ci biir acte bi sax amna ben benn chapitre bi nga xamante dañ ko dañ ko réserver par rapport à la politique de la jeunesse bi collectivité locale yi war a am kon jeunesse nañ dem ñu impliquer ci euh, système de décision yi nga xamante mom mo am ci au niveau des collectivités locales euh, bien sûr que gëm naa ne dina dem Beaucoup, beaucoup, jeunes ko bu warna jeunesse bi dem parce que d'autant plus que warna nañ ci mën a gis pour que émergence mun a mun am surtout au niveau de la localité bon man li ci gis pour jeunesse bi mën ci gis seen bopp que c'est un c'est un c'est un élément de lutte contre l'exode rural dans un premier temps puisque nous avons am une communalisation donc dans les périphéries nous ñu faire fa di def exode rural vers la ville donc je pense que c'est quelque chose que nga xamante ne jeunesse bi mën nañ si gis seen seen quoi ba développer ko seen donc c'est ce que li ma ci quoi

kon euh, nga xam ne marché yi fi nekk affaire yooyu ñoo fi nekk ñoom li na xamante ne ñoo ngi koy jël muy recette yi nga xamante ne nit ñi leen koy jox suñ ko jëlee ni ñu ko delluwaat ci nit ñi foofu laay gisee ni maanaam euh, danañ yëg ñun suñu bopp ci Actu bi mais pas ñuy jël test di ko wax di ko kii non non il faut que ñoom ñi nga xamante ne ñoo bëgg Actu Touba bi ñoom ñu doxal ko ñoom ñoo ci ko a jiitu quoi merci beaucoup waaw jërëjëf bala ñuy ñuy tëjee waxtaan wi mooy dañuy sant di gërëm suñu coordonnateur premier transport moy Pape Mamadou Samake euh, équipe bi mu andal muy ñom Khalifa Gueye Pape Fall Moussa Tine Kulim Ju Kulim Jum moo mané dal euh, ñun wa première tranche li nga xamante nak yalla defal nañu ko muy ay unité ñun wax ñu ay quartier ay unité nañ wax té quartier bientôt dañuy disparaître nek ay cellule départ euh, administrative ñun suñu administration déjà commence nañ commence nañ ko rek régler ba créer